lycée yéenekaay yi ak dem sa Senghor. internet yu 5 TV àlleen ma seeni nopp ma dëgtal leen li si yéenekaay yi dañu koy door ak critique yéenekaay bi duñu xamal ni weerub juin bi tàngoon na jër ndax limu ko ñi faatu ci mbas mi toll na ba si juróom benn fukki doomu aadama ba tax yéenekaay bi tuddee ko juin mortel libération di ñu xibaar si tolluwaayu mbas mi si réew mi yéenekaay bi ne si ñaari fan rek maanaam si weekend bi ñaari téeméer ak fanweer ak ñaari yu bees am nañu ko si feebar bi juróom doomu aadama faatu si loolee nag yóbbu limu ki ñi faatu ba si téeméer ak juróomi nit ñu nemmeeku nag dellu si waat kaa importé yi si AIBD ba tax Serigne Babacar Sy di wax si laat yóbbin yéenekaay ni lu ñeel gestion Covid 19 bi état bi daa teggi ndombal tànkam Vox Populi dool di ñu si xamal ni xalif général des Tidiane xamle na ni nit ku responsable warul démissionné si xeex musiba boo xam ni mën naa lor askanam moom Serigne Babacar Sy wax ni état bi na xamal sénégalais yi ni feebar bi amul lu koy faj kon na askan wi fagaru rek rek wala ñu daal di faatu te it état bi na génn ci li nga xam ni mooy mbirum jàkka yeeg jumaa yi ba tax les échos bind ni xali général des Tidiane àdduna si ndog-ndog bi nga xam ni moom la état bi am ba tax si du ko tijaane lu ñeel seen taxawaay si mbas mi xali général des Tidiane moo ngay sermoné état ba mu mel ni kon état bu Sénégal dégg na kàddu yooyu ndax le quotidien xamle na ni état bi moo ngi jéem beneen yi maanaam doxalin bu bees ngir jàmmaarloog feebar bi stratégie bi gën mooy confinement vox populi di ñu ci xibaar ni yi dina yokk lii di état d'urgence beeg couvre-feu bi l'observateur ñu jamono ji Macky Sall ci ab njàqare la nekk ndax ñaari mbir da koo jaaxal te mooy ndax daa war a yokk lii di loi d'habilitation bi wala mu génnee askan wi ci lii di état d'urgence bi le quotidien di ñu xibaar ni Gorée jotaat na libertéem ak dignitéem ndax place de l'Europe ba ngénte waat nañu ko léegi palace de la liberté et de la dignité la daal di tudd yaatal wala defaraat bi ñu bëgg a def si ndakaaru ba tax jamono ji marché bu sàndaga si ajuma ji lañu koy raser maanaam dañu ko fay jëlee waaye ñenn ci commerçant ya ñoo ngay ñaxtu li leen métti rekk mooy dogal yi daa waroon a am lu ko jiitu ñu jeexal ak tàggat yaram sunu làmb di ñu xibaar ni gannaaw bi Sa laajee juróom benn fukki million si digganteem ak rëg-rëg promoteur bi contacté na kii di guy gi ngir man koo boole ak rëg-rëg moomee stade championnat Espagne bi Barça ba tey ji nekkagul si lu leer waaye Real de Madrid nag moo ngi si yoon ngir nekk ci kaw championnat bi ci la ñuy nar keppeli si yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf